ma yàqal man sama olala olala olala olala olala olala oh bu nangu ku la yàqal sa oh la la. asalaamaaleykum internet yu Dakar Actu seen rubrique people tay duma ci wet ben yoon dama ci and ak euh, Vieux Ndiaye oh la la Vieux di la bàyyi nga présenté wu. mais maa ngi lay fay sama jigéen. Hmm, di la jaajëfal waaw. Euh, di wax ne je suis au Sénégal alaykum wa diaspora bi je suis wa Sénégal suis Bayou Sénégal, wa man nak Sénégal, je suis la. Olala vraiment au l'enfant du signe, au doomu ah au Sénégal, ci Dakarou, ci banlieue bi ah, di musique

fexe ba créer way hmm? xëy xëy bay waajal dam fay sa clip di préparer pour génne sa album la 5 avril nit ñëw na ko cas muy kan Abiba na ko cas génnee ko vraiment mu doon loo xamante ne maanaam lu ma naqarlu la voilà lu samay fans tamit naqarlu la lu samay staff naqarlu la

maanaam xale yi di ko way loolu macha allah maanaam loolu mënuma koo mënuma koo bañ mais bu demee ba di ko génnee mu woo ma téléphone mu tàggu ma waaw ne ma vie kat ah, man damay génne sama damay génnee way léegi lii sa morceau olala boobu noonu dama ko sentir léegi li boobaa ma wax li fi nekk xamal ko carrément ne ko ah nii la demee wala nii mais man maa ngi préparé ba pare sama album di waaj a clip. normalement dimanche bi laay commencé sama tournage yi semaine bi laa toog le 8 mars bi mu génne ko fu ne lañ ma doon woo ci monde bi vraiment ma di ko naqarlu nag jeune talent yi nga xam ne dañoo nekk Sénégal ak li ko wër nañ bàyyi maanaam di jàngee way ci YouTube bi wala lu gis way ko man nag moom préparé naa ak samay maanaam samay nit. maanaam ñi ma àndal yëpp fii may wax yow nii jël nañu avocat moom dina ci def la ca war voilà. waaw bala ñuy ñëwaat ci loolu ci leeral yaa ngi wax sànq ne mu ci téléphone am woo par exemple demandé la sa avis bala muy reprendre sa son mais est-ce que yow tamit jéem nga ko. Euh, joindre la man woo naa ko trois fois. Mhm. woo naa ko trois fois. woo naa ko trois fois yoo xam ne du jël. Mhm. vraiment mu doon lu wana wax naa ko eh. trois fois yow xam nga kon bëgg naa jàmm mhm. ki la woo na jàmm mhm. mais nit doo jël woyam tooñ ko ba pare ah ñu ji la woo duñ la jot mhm. BSDA jaar naa fa Sodafa en même temps waaye jaar naa fa waxtaan naag euh, maanaam maanaam ka fa yor. wàllu su la déggee kon da ngaa protéger son bopp ba eh, sama attestation mi attestation bi nga xamantene sama œuvre ça sama œuvre attestation bi mi voilà sama œuvre protéger mi tampon directeur bi la voilà ba kon man lépp lu may rek voilà. donc euh, kon lan ngay xaarandi ci plainte wala. Wa fi may wax yow mhm. avocat mhm. maanaam lépp lañ koy jël ci def ndax nag euh, suñ dëkk bi maanaam du dëkku tooñ du nekkul dëkku tooñ te il faut ñun jeunesse bi tamit ñu xippi suñuy bët xool maanaam di bañ di yàqalalte parce que tooñ baaxul ndax ku ne xam na ne xalaat dafa metti maanaam am sa œuvre nit jël ko yaa ngi dégg ah génnee ko te tàgguwula la woowu téléphone neexul ci xol comprendre nga waaw li may ñaax nag jeunesse bi moom tamit jeunesse senegal mooy nañ bàyyi di jël woyu jàmbur yi di ko génne nit loo xalaatul xamuloo fu mu jógee boo ko gisee muy ci YouTube bi muy ci internet bi boo xamul ki nga xamante ne moom moom way wax jéemal a créer parce que way du jeex chaque jour saa boo yeewoo yaa ngi gis li ngay war a way yow kon way kenn du ko tatone voilà ba ça Si sax dara mais sax euh, euh, BSDA bu ne sax mom mom mom euh, déposer na ay sax BSDA hein ah? dinañ ko BSDA dinañ ko mais numéro sax new fa parce que amu fa ben son kon son bi mi je yépp mom ko BSDA tu as vu parce que man parce que ak ñi fa nekk. mais doo ko jéem a jéem a insister nga jéem ko joindre. walla nga envoyé ko par message peut-être identifié wu mu xam ne ni ko yaa ko yoo. non hmm. yoon dina def li nga xamante ne loolu la may yoon dina def li nga xamante ne moom la may ñun parce que naam naam tooñ baaxul yàlla bëggul koy tooñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggul kuy tooñ. naam na ci lu ñu nekk nii ah ñun ñëpp ay doomu aadama lañ man mii di wax yow nii sama rakk la moom moom Abiba te am naa ay rakk yu jigéen mais li def nii dama koy corriger parce que c'est pas normal ñi jël way nga way sa woy ñu jël ko génnee ko après yow après yow nga perte yow mi doxoon say kii fay say clip studio dafa metti album dafa metti jamono ji jeune légui ken kenn defatul album da nga koy mën def ko. voilà bon ba tax man dama ci dépassé ay millions mais li mouma def ni vraiment daf ma touché fan yëpp nelawuma sama beut yaa ni nii xonk cur ah vraiment c'est dur voilà di jéggalu ñëpp nak ah, di wax ñëpp manam manam wax ji ko mu touché nak ma baal.

Euh, YouTube nga bind Vieux Ndiaye olala. Oh bi waaw son bi mën naa ne sama benn xarit. laa laa nii ñuy waxtaan rek mu xuloog benn gelam nii rek ah, di ci waxtaan. Mm-hmm. am nga noonu la ma dikkee man ko may boy bul nangu ku la yàqal sa olala nag quoi mm-hmm. ah noonu la ma ñëwee rek ma ne ah, bon mais lii tem la ah. mm-hmm. noonu laa ko bindee. di ci nekk nag presque bind naa ko un mois yoo xam ne dama ciy sonn suba ngoon guddi bëccëg ñun bañuñu maanaam tey Youssou Ndour man damay woy ay woyam sama soirée euh, Omar Pène noonu Baba Maal noonu keneen ak keneen noonu mais soirée laa koy woy duma ko génnee ci télévision bi non su ma demee boo di ko génnee dinaa woo wala ma fexe ba gis la ne ah père kat wala grand kat ah man vraiment sa woy bi dafa ma neex nii ak jaar ci yoon bi loolu mooy yoon mais ñu ñëw jël woyu jàmbur rek ah voilà génne ko noonu. su ma la déggee bu baax li la naqari mooy le fait mu génnee sa su te prévenir la. vraiment man man man man loolu mooy sama voilà. Hmm. génne sama son man ma war a dem bay génne. waaw dem bay sama clip pour génne. Hmm. di waajal bu soobee yàlla maanaam année bi ñuy dugg si nii. Hmm? waaj a génne sama sama album moom mu ñëw génne sama kaw. lii problème bi mooy fi mu ne tey Sénégal tey fi mu nekk nii ah maanaam euh, maanaam su ma ko su ma ko wonul yoon bi ah. Mm-hmm. ñëpp dañ naan woy bi moom moo ko moom. ñuy ñëw ci tàggatoo bi nga wax ñu sa mot de maa ngi nuyu wax Sénégal gépp mm-hmm. waaw di leen wax ne. Euh, lepp lu waral li rek manam manam gëm suñu liggéey la xam nga am ambition am gëm-gëm fonk li ñuy def voilà ndax nit ki lepp lo def ta fonk ko amul ñëri ma xaar bu le 5 avril bu soobé yalla album bi ñëw. ñu do waxal seytane bala boobu may ñu tuur ci olala bi. bul nangu ku la yàqal sa olala bul nangu ku la sa olala. bul nangu ku la yàqal sa oolala man du ma nangu ku ma yàqal man sama oolala kon ne leen olala oolala oolala oolala bul nangu ku la yàqal sa oolala Abiba mi dafa bëgg yàq sama oolala kon Abiba bu ko yàqal oolala internet yi ñoo ko déggandoo ñu dig daje beneen yoon même rubrique euh, people merci